وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نجي سبس البرم سبحانه وتعالى بجلة أبي أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم من البرم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى yàlla borom bi subhanahu wa taala nangul ñu mboolem li nga xam ne ñu ngi ci jéem ci ay jaamu yàlla moo xam ci lu ñuy jëf la moo xam ci lu ñuy wax mbokk yi xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama waaye def ci moom lii tax mu mën a baax def ci moom lii tax mu safaan ànd ak loolu nag yàlla subhanahu wa taala jox doomu aadama masuliya yar bakkanam kenn ku ci nekk nag bakkan bi ko yàlla subhanahu wa taala dénk yàlla dana ko ko laaj ndax yar googee mu ko dénkoon mi ngi koy def mi ngi ko doon def wala déet borom bi subhanahu wa taala ci lu dul benn aaya ci alquran dafay junj di wan ni bakkan kat moom moom ku sikk la bakkan kat ku ayibu la waaye nag fexe ñeel na koo xam ni moom ay bakkanam jooju def ko fas yéene jindi waaye fexe di ñeel na ki nga xam ne daa bàyyi bakkan bi rek boyal ko kenn ci borom xam-xam yoo xam ne bakkan day dafa mel ni gone ngone suy nàmp ngone moom buy nàmp boo ko féeralut moom du xam dara day continuer rek waaye su fekkee ka da nga ko xam ne daa nàmp bi kat fii lay yem même bu fekkee ci bis yu njëkk yi bu yàggee dana ko tàmm lu ci ko yëg ci moo tax dox bi nit ci aji gëm yàlla ji dox jëm ci yàlla subhanahu wa taala bokk na ci la ko cay dimbali te dox ba yomb si mokk te yegg mooy mu fexe yar bakkanam ci anam yi nga xam ni ak salafu saalix ñoom doon nañ ko sonnee ci yar seeni bakkan yar bakkan nag mbokk yi bu ñu ko waxee tekkiwul mooy ci jël ab yar bi cor bakkan bi déedéet waaye dafa am ay mbir yoo xam ne bakkan da ko bëgg bu ko defee nit ki di ko sa fën di ko def di ko ko xañ loolu bokk na ci di koy dimbali ah bakkan day yar ko lu lu simple la lu yomb la waaye nag seytaane mooy taxaw du la bàyyi pour bakkan boobu nga yar ko ba mel ni borom bi subhanahu wa taala bëgg suñu borom day bu ñu xoolee ci alquran ci suuratu shams muy saar boobu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moom la tuddee jant bi yàlla dafay wax ni baada audu billahi samii alalim min alsheitan irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها borom bi subhanahu wa taala di gin ci bakkan ak borom bi subhanahu wa taala ni mu ko mooñee ak ni mu ko bindee di wane ni yàlla day nee na def na ci bakkan luy tax mu baax waaye def na ci bakkan luy tax mu saay saay fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla subhanahu wa taala monte na ci mag jëmmi doomu aadama ji luy tax mu baax waaye monte na ci moom luy tax mu saay saay qad aflaha defe ñeel na man zakkaaha ki nga xam ne dafa kuñ bakkanam yar ko wër ko sonn ka moom ngir rek mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bëgg mu mel ni waaye texee bi ak toske rek alkaane ñeel na ki nga xam ne dafa bàyyi bakkan bi rek boyal ko dañ koo yar waaye dañ koo topp borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci suurtu Yuusuf yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam yonent yàlla bu mag boobu nga xam ni yarkati bakkan yépp dëppoo nañ ni groupe bi ñuy yaree bakkan Yuusuf imaam la ca ndax li gën a métti ci bakkan muy feneen ci mooy yàlla mooy yàlla goo xam ne daa bokk ci mooy yàlla yi bakkan gën a bëgg nga fexe foñ sa bakkan yar ko nekk ko ba yeggu see ci loo xam ne jumtukaay yay tax nga mooy yépp a tee jumtukaay yay tee nga mooy yépp a dàq mu yar bakkanam foñ bakkanam ba moytu ndiku mooy googam borom subhanahu wa taala ni ko ko taggee ci alquran laa shakka ni ko ko imaam la ca fànn suñu borom mi ngi wax ne wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu a bakkan day moom jël ci gàppal ngant bakkan day jël sa setal bakkan day jël sa xaj aka màgg-màggal aka megg-meggal ndax bakkan moom la ammaratun bisu moom daal dafa mel ni rek digal borom def lu bon ak safaan da koo neex illa ma rahima rabbi li dul koo xam ne borom bi daf koy yërëm yal na borom sa xala boole ni ci ñooñee mu yërëm kon mbokk yi loolu ci ngay gis ni doomu aadama ku war na mu sonn la ci bakkanam ci yar ko ndax dox bi ñuy dox jëm ci yàlla subhanahu wa taala pour mu yegg ca bokk na ci manazil yi muy joggi pour yegg mooy manzila yar bakkan bi yar ko nag ba mu mel na borom bi subhanahu wa taala bëgg te loolee ay xutuwaat lay laaj du saage ni ak fàttali boo ci dégg rek jub mu mu simple mu yegg déedéet du saage ni ñaari fan benn semaine nga ci def déedéet waaye mbokk yi mbir moom mu jiir ak dund la kenn ci magi salaf yi day wax ne nga jàpp bakkan bi di ko yar jàpp bakkan bi di ko yar ci xeeti yar yi nga xam ne moom la yonent yàlla doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam bokk yi gën a diis ci bakkan te bokk na ci bakkan gën a bayit nag wala fi dañuy yëg ni bakkan jàmm la bëgg nañu déedéet bakkan fii bëggul jàmm ndax su bëggoon jàmm li ñu koy wommat di ko ca jëne loolaay jàmmam te du ko nag bakkan kay bëggoon jàmm day def ay jéego pour am aljanna bakkan kay su bëggoon jàmm day mooy ko diku luy tax lu mu ko lakk ci safara waaye mbokk yi mbokk ni ci tomb yi gën a am solo yi nga xam ne yàggkati bakkan yi dañ koy jëfandikoo tomb yi mën a jaar pour yar bakkan ka bay mënees naa ko biir dund na di ko wax soo demee ci borom xam-xam yi ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala baaxee na leen ak dégg alquran ñoom day mën nañoo def ay at ay sanawaat di xàddatu ci yan système yan moyen yan jumtukaay lan mën a jaar ba yar bakkan bokk na ci jumtukaay yi gën a rëy nag yi ñuy yaree bakkan mbokk yi mooy doomu aadama teg ci nasba aynayhi ci ñaari bëtëm ndaw loolu moom nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom lay tuddee dee dëgg la làmmiñ yi danañ koy tudd lu bay waaye nag day la jaabu dëgg-dëgg ñu xalaat ko ci moom diisu ko ko xalaat bokk na ci yi gën a rëy yi gën a rëy wala sax damay wax bi gën a rëy ndax mooy al gaayatul xuswa su moyen yi mën a utiliser pour yar bakkan ndax bakkan moom bu la mën ci wax ni nga mën a dee rek waxut lu am loolu amut billahi al azim amut kenn loolu déedéet du aji gëm yàlla ci di ñàkk gëm yàlla ci kenn loolu nit ñi nag xam nga ngir moom bu yëg seedu lu neex waaye mën na ko caa wax waaye nag fépp ku ne ñeme na ko boo ko ñemee yow nee ko waxoo lu am kenn ñemee ko déet borom bi de subhanahu wa taala dafa sàkk ndawam loolu ñuy tuddee dee lu jiitu muy sàkk dund xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu amalan qaddama arrahmanu duna almawta qabla alxayaat wa naxnu nadunnu anna almawt anna alxayaata qabla almawt borom bi dafa jiital dee bopp ci teg dund foofu nag fiq bu nu amiq ma nga fa fiq bu xóot mooy doomu aadama yi dañoo jàpp ni dee dund mooy jiitu dee topp ca suñu bëgg laa suñu borom bëgg laa wax ni lii réalité la boo xam ni dara du ko dindi foog nag ñu war lañu sax moo jiitu ndax al adam مجيب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا زمن أجيب في وندو أمي أمور بالليل benn dëkk amul woon benn tur amul woon benn nit amul woon borom bi subhanahu wa taala sàkk nag li ñuy tuddee nit inna xalaqna al insana min nutfatin amshaj nabtalihi fa jaalnaahu samian basira borom bi subhanahu wa taala sàkk nag ndawam loolu ñuy tuddee malaakam dee malaaka moo xam ne moom jaamu yàllaam rek mooy képp ku war fee jóge mu jëlee borom baa ngi wax ni قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون waxal nit ñi ni leen malaaka mi nga xam ne suñu borom da koo sàkk pour faataate moom da ko war a faatu nan la faatu te it nag ku faatu na ci sa borom yàlla du jëm ila rabbika kaddaxam fa mulaqii da nga dajeeg yàlla subhanahu wa taala innaka kaadix ila rabbika kaddaxam fa mulaqii mbokk yi di ko xalaat ak am solo bàyyi ko sa xel mi di jàppee sa bopp ni tey man la man maa faat jaag bii muy séen ci sama kanam ñu tëral ci ab néew mu sàngoo lu weex man la garab jooje may dajeeg yàlla ban nit lay doon wallahi mbokk yi lii lii aji gëm yàlla di dund ba am ay at te toogoo ay bis di ko xalaat ba mu jooyloo man de li ma gëm ak li ma jot a xam bariwul de waaye li ma gëm muy ngëm gi def na ci sa xol lu rag la billahi la adim waaye ku de jàppal ni kii ñu tiim mu sàngoolu weex sàll sàlli ñareet jeexal ci àddina tàkk jëm àllaaxira su dusu dëpp ci kooku man la keroog jooju may dajeeg sama borom ban nit laay doon keroog lan laa yóbbaale loo ñàkkoon doo ko man damaa sot loo amoon nag bu dee sell na borom subhanahu wa taala inna allah la yudiicu ajra man axsana amala dee mbokk yi xaqiqa la boo xam ne laa xayaal réalité la boo xam du ay jeneer du ay gént du lu ñuy foof wala luy naxe déedéet waaye lu am borom bi day subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ni nekk gi mu nekk réalité sax daa ëpp ndax nit mënu koo daw قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ورب من يدي من يدعو أخبرني نار نت ولم تدخل من قال لك يا رب من يدعو doomu aadama lu mu jàpp ne bu ko dugalee ci biiram da koy faat sax da koy moytu dikk dee mi nii daw bu fekkee dañ koy wax sax da ngay gis nit du bëgg a dégg xam ñoo xam ne léeg-léeg bay wax dee sax dañuy takk seen nopp lañ du benn ndax neen da liñ di si si tewu fekk li loolu faju ko de suñu borom ni fa innahu mulaaqikum da ngay daw foo jëm mu ni fa nga jëm fa lay dajee yow fa innahu mulaaqikum nga ne naa taxaw benn place bi aynama takunu yudrikkum almawt walaw kuntum fi burujin musayyada da nga doon daw yaa fa nga jëm kat ma nga fa taxaw di la xaar nga ne naa taxaw fi ma nekk kon bañ a dem ñu ni foofu nga taxaw nag sax day fa la lay fekk kon wala kuntum fi burujin mushayyada ëggalal la ca kaw asamaan ya ca montagne ya ca ruqruqaat ya fu mu gën a làqoo suñu borom ni foofu leen leen di fekk mbokk yi kenn ci borom xam-xam yi lislaam yi dafay nekk yi mu ni benn waay yaayam dafa tëdd ba guddi mu gént mu dugg ci avion dee fekk waa ji te suba sa la waroon a xëy tukki yaay ji yeewu tiit ni ko yow day jël ay kayitam xotti ko waa ji fii fëkkanteeg moom ni ko xaw nga dem mënumaa ñàkk ndax mission la yaa ji fexe bërëbëreeg moom ba ñu ko ras ci biir néeg bi tëj ko caabi ginnaaw ngir bëgg bol bi mu waroon a dem na ko fi bàyyi yaa ji tëj ko caabi ginnaaw ba xare nag fekk seen kër soriwuloon aéroport bi waa ji yaa ji yéeg ci kaw balcon bi di séentu di séentu di séentu di séentu ba mu wér ko ni avion bi dem si li mu lu am la nekkul ak wéet bu ñu nettali ci téere déet lu am la ak borom xam-xam di ko ni fii ba mu séentu moom wóor ko ni vol bi doom ji waroon a dugg jàll na dem na yaa gi ci jinnéeg bi rek fekk waa ji faatu na ci kaw lal bi loolu li muy wane mooy faatu moom saa bu yeggee amut lenn lu ko mën a fanq illa rabbul alamin yàlla subhanahu wa taala te saa bu yeggee nag du ko fanq de فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون saa bu waxtu bi yegsee nit yàlla ne du ma ko ci yokk seconde du ma ko ci waay bakkan bi nag borom bi moo ko moom te saa bu koy jël du ko tàggu de déedéet suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni góor-góor leen ngeen gaaw balaa ngeen di dee dikkee bagtatan wa antum la tashurun te du ngeen yëg أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة bakkan bi de bu ko dee dikkalee fi rëcc mu wóor ko ni tey jii day bu dee bëccëg du ko fi yeggalee bu dee ngoonit du ko fi fekk suñu borom ni góorgóor leen balaa yéen a dee di bettee noonu bakkan bi naan rey toskare ñeel na ma ci yi nga xam ni doon naa ci sàggan amoon naa mille chance pour def lu ma tàmbal aljan amoon naa mille chance pour am ay ibaada yoo xam ni sell la waaye def na ko moo ne dañ nekkoon naa ku ñàkk ak cër wala boobu bakkan baa ngi naan ay bu doon yàlla gindi na ma boo mën a bokk si ñu doon rafetal wala ñu doon rafetal yàlla wala boobu mu ne ba gis mbugal ni mu wax ni su ma amoon fenn fu ma jaar ba rëcc kon tey dinaa ko def suñu borom mu ne déedéet bala ahankay yi ngay wax yépp waxi ku tiit la rek waaye mënoon am amoon na samay aaya dikkaloon na la nga lànkoon weddi ko bokkoon si ñi nga xamante ni dañoo sàgganoon kon mbokk yi bakkan bu ne war na léeg-léeg mu wéet ak boppam man diw doomu diw ak diw dëkk ci barab sàngam may néew bii tëdd xàlli nee ni ki aaxiru ayaami min daari dunya wa awalu yawmi min ayaami al axira bis bi nga jëkk génn àddina ak bis bi nga jëkk tar bi bàmmeel waxta ba mu law asa alfata alfan min al awaami malika amrihi mutanaiman fiha bi kulli nafisatin su benn waaye dundoon lu mat junni at yoo xam ni ay mbirum yëpp yàlla daf koo jox bu jekk ko loo xalaat ci xeeti xéewal rek waa ji jot na koo noos doog a dem ni ma kaana dalika kullahu fi alyati bi mabiti awwali laylatin fi qabrihi lu lépp mënut a remplacer génn guddi wax na ñaari guddi ñetti de génn guddi gi nit ci njëkk xanaan bàmmeel man diw doomu diw ak diw man tey maa faatu ñu jàppoo ma yóbbu ma ba ca àll ba suul ma daal di ñu gis rek wallahi rabbil izzati wal jabarut loo yaakaaroon lu dul li nga doon jëf ci ay jëf sax mu war la suñu borom subhanahu wa taala mun lépp luñ ci def ci lu baax muy góor muy jigéen فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون dinaa la dund dund gu dal ci àddina dund gu neex boo xam ne nit ñi dañ naan waaw kii man mu mun def ba àddinaam neex ci ay moyens sax amu ko fekk mbir mi du mbirum moyen waaye mbir mu mbirum xol bu fees la ak gëm yàlla bëgg ko suñu borom ni wala najziyannahum dinañ fay àllaaxira ajrahum seeni fay bi ahsani ma kaanu yaamaluun lu gën a rafet li nga doon def ndax da ngay def benn ma fay la dund kon mbokk yi programme boobu jullit bu ne bu bëggee yar mbakkanam xaw mu teg ko ci kanam imam nawawi boo delloo ci riyadu salihin ca tàmbali ba dafa wax am solo ne inna lillahi ibadan fufana xallaqu dunya wa xaafu lfitana yàlla di am na jaam yu muus ci kaw suuf yu ñor am dañ na leen wét ñu ne ko ñan la muy gaa yi nga xam ne xallaqu dunya dañoo fate àddina te fas yéene wuñ koo takkaat waxaaful fitana dañoo jiit fitna yi leen di gaar ci àddina mais ñoom de dañoo xool àddina gis ni àddina géej la te faw ñu jot gi jàll nee nañu daal di jël defar lu gaal nee na gaal boo xam ne ay topp yàlla la gaal ak topp yàlla nee na ñu jàppee ndox géej gi ab joggikaay mu ne wattaxadu saalihal aamaali fiha sufuna dañoo jël ay jaamu yàlla composé ko ba tabax ci gaaw joow nag jéeg ci kaw ndox mi pour jàll ñu ne ñoo ñooy jaamu yàlla yu muus yi kon yéen ci yàlla bi nee sallallahu alayhi wa sallam bu doomu aadama doon daw dee comme ni nga xam ni noonu lay bu doon daw wërsëgam wërsëgam dana ko dàq ba dàq ko comme ni ko dee di dàqee ba dàq borom bi subhanahu wa taala dafa sàkk ab malaaka boo xam ne su ñu xam alquran mi ngi tudd malakul mawt seen wutul ko tudd kudul borom suñu borom moom قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بقي لبخم بخم بخم lu takkaay yu bari bari bari bari lu dund ci neex neex neex fàttalikul gan boo xam ne bu yegsee loo ko ganalee lu dul yekkal ko sa roogi mu yóbbu bëggut loolu amut loo koy ganale loo ko jox bëgg malakul mawt bu yegsee loo ko ganalee lu dul jox ko sa roogi gan boo xam ne bu yegsee liñ ko teralee lim gën a bëgg mooy jox ko sa roogi mu yóbbu wallahi la adim ku ñu la ñene la ko da lay wax la ko الإمام الحافظ ابن كثير ودلو سأل البداية والنهاية من كي نتني أب أثر وانت أثر بابو مسنا قولا كن تسمي سرين من ما يأكار من ويرنا ينسي على موسى عليه السلام غرب دغر غوب بكو ملاك الموت بكو ملاك الموت يك جلسي موسى كن يمي والله موسى عليه السلام كن يمي والله وأمي كنا يمي نجيكم فوق لا يرى Moussa dafa tiit ba xar ci ab dóor rek dóor ko ci bët bi borom soo ko laaj malaaka mi jël si ñu ko yàlla yabal nga ma ci jaam boo xam ni ñi nga mës a bind lépp moo ci gën a ragal dee suñu borom ma ni ko dellu boo demee nee ko lu yëkkatee loxoom teg ko ci kaw ab der lu tolloog perti kawar ya loxo bay tege ca kawam na ko wàññi ci ay at mu dund ko bu dee loolu la bëgg malaaka mi di ko wax loolu Moussa Moussa ni ko ah après mu ne ko après da ngay dee mu ne ko su fekkee yàgg yàgg tey dee lay doon tey defal la sa borom sant kon boobul kenn ku naan ñeme na ko kooku la waaye déet xatta muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu fekkee sa bakkan bii da nga yaakaar ne du baatu muhammad gën ab bakkanam gën sa bés suñu borom mu ne ko innaka mayitun wa innakum mayitun moo ne yow sax ne da ngay faatu dafa làqoo dafa wuy ci boroomam dafa yéeg ay rafetal la rek waaye dee la suñu boroom mu ni yéen ñëpp ci nit day da ngeen di faatu nit day ñëw ci bis yi rek dara nit ya jëmmi doomu aadama yi seen ruux yi mbokk yi mi ngi mel ni ci malaaka mi yore dee ak garab garab bi mag bi rëy sàlli gàtt bu dëgër këcc mu am ay xob nag léegi mbokk yi man yaakaar ngeen ni garab xob yi day continuer di verte rek waaw déedéet léeg-léeg xëy nga gis ay xob yu commencé lax nga xëy xëy gis ay xob yu commencé jaune nga xëy xëy gis ay xob yu commencé wàcc ba sax bu tax saxee ci sa biir kër lekk-lekk nga bale xob yi nga xam ne ñoom dañoo verte na tax ñoom seen dee yegg see gudd doot na ci asar malaaka yi saa bu xëyee dafay xool diw doomu diw diw diw diw diw ah moom am na saas dese na tuuti diw doomu diw ah moom kat ci ñu war a dem gis ak xëy na moom xob yi nga xam ne mooy ñen yi làq yi mooy ñi nga xam ne dañooy tawax ak ñi nga xam ni rekk dikkal na leen waaye xob yi nga xam ni moo zone nag ba tàmbalee wadd nag mooy ñu war a faatu saa bu malaaka bi xëyee gis bu ne bu xoolee ci garab googu rek gis ñi nga xam ne ñoom seeni xob war naa wadd dee war na leen dikkal mu jël seeni ruux ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين sunu borom mu ngi ñu daal leen delloo nag léegi ci yàlla loolu lu mu bari bari bari bari kaa leen ko jébbal sunu borom subhaana almalik al aala ndax jébbalam nga sa borom nag sa bopp sa borom balaa ñu laa jébbal sa borom اغتنم خمسا قبل خمس yéen yàlla mi ngi préféré ci juróomi mbir yi balaa yeneen juróom di ca topp bokk na ci mooy xayaataka qabla mawti sa dund gi balaa ngaa faatu ndax mbokk yi ñi nga xamoon seen faatu ndax dañ leen gën a xëy ci dund laa wallahi ndax ñi nga xamante ni ñoom dem nañ ñàkk ay pexe moo leen yóbbu laa wallahi amuñ ci benn pexe ndax ñoom dañoo bëgg dund moo tax ñu dem wallahi am na amaan na ay ay masro ay projet yi ni yàgg ñoom yéen ko doon lalandoo ngay bëgg li ngay bëgg muy bëgg li muy bëgg ngay mbëgg li ngay mbëgg muy mbëgg li muy mbëgg waaye nag al mawt lam rata ala ahli ahli naimi naimahum nooskat gee moo xajamal seen nooska bala doon neex neex day jaadu léeg-léeg ma xalaat sama diggante sama borom man bu ma dajee sama borom benn nit laay borom yéen ci yàlla bi day sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul benn du ñaar alquran day ci lu dul benn aaya du ñaar yàlla subhanahu wa taala daf ñuy fàttali dee ak malaaka mi nga xam ni moom mooy ñun pour war a jël si rox koo xam ni buy ñëw du fàggoo du yëglu bu tëjee bunt du ko tere yegg si ndax ne tëj ni buntam nga xam ni kenn ci doomu aadama yi dunda yow mënta yegg si waaye malaaka mu yegg si ndax xam nga fu muy jaar bunt du ko tere dund fenêtre du ko tere yegsi bu yegsee xëcc sa ruux daal di yóbbu mu nekk sa minute yi mujj ci àddina mbokk yi mbokk yi lan nga mujjee def ci àddina boobu dem sa loxo lan nga mujjee def allahu akbar gis ñoo xam ne yàlla defal leen tawfiq ñoom xosnul xaatima xosnul xaatima ko xam ne mooy kat yàlla woon waaye yàlla baaxee nag muy faatu ci sujud la faatu allahu akbar wallahi benn borom xam-xam ñu ngi nekk li ci benn séeréer waa joo xam ni mooy kat yàlla bu mag la woon wax ci ay mooy li mu def wax ci ay mooy li mu def wax ci ay mooy li mu def mu nekk lu bari lool waaye fi axiri laxadaati min laxadaati xayaatihi waffaqahu llahu bi tawba yàlla dimbali ko tuub mu ñëw ci jàkk bi fekk ay mbokk yu fa nekk li may nekk li ci Masar gii la xawee Égypte ànd ak ñoom di góorgóorlu ci ay jaam yoon di jooy rek subhaanal malik al aala suñ ko booy loon ci jàkka ji mu koy jéem a jàngal quran nee na moom dafa dem ba dafa rus bëggatu koo jàngal ndax moom gëm gëm yàlla la kii di doogu tul am ba foo ko fekk rek ñu ngi sëgg di jooy foo ko fekk rek ñu ngi jooy ay bakkaar ci mujjante lu dundam dañuy julli su fekkee fàtte ma wallahu aalam benn ci awqaat la àlla mu nekk fajar dañu sujjóot rek nekk moom fara jaare dem muy gisal bi mujj ci biir néeg yi gën ci néegi yàlla yi muy jàkka ci waxtu yi nga xam ni malaaka yi dañuy ñëw di ko teeree wa quran al fajri inna quran al fajri kaana mashhuda quran al fajri la alayhi salatu alfajr mbokk yi est ce que di nga am mujjantal gu mel nii wala boo ko amul ci nga am loo xam ne ci ay ibaada nga faatu yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida kaana al insaanu إذا كان المرء في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أي المؤمن أجد يا الله ودنا نقرأ خلي ببرم بجوخر جيحنا إيسا ويكمي كريستي وخمي يقول تقل جديد أما أنا كان كل كتير ولا ما تخمن لا إن جلت أجلت من مام دي أنا رجع ورنا كفيدك أما أنا كان مام اللي جاب لي مام دي كان ورنا من دي بقو بداس أما نانجا بيعب لو بفاك fekk na kenn bi ci suñu biir amaan na sax man la li ko dese tuuti la wallahi wa huwa laa yadri te xamu ci yéen ci yàlla bi nag bu ñu demee ba mbir mi wax la jeex na si xadis boo xam ne bi ñu wax mi ngi si saxi muslim xadis la bu wér waaye li may nekk nii dinaa andi yeneen riwaay yu nekkul ci muslim te yëpp wér na insha allah yéen ci yàlla bi nee na bu fekkee xal yi dafa jeex tàkk tey jii ci fajar ci la waa ji war a faatu ndax suñu borom ne fa ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun waxtu yu si yegsee minute du ëpp seconde du yokk suñu borom day yebal ay malaayika malaaka yu sedd fa yàlla waxuma kenn de waxuma malakul mawti de malakul mawti xam ay aawaan ñoo koy dimbali yéen ci yàlla nee na ay malaaka dañuy ñëw ba ñëw bu fekkee aji gëm yàlla la malaaka yi dañuy ñëw ba tolloog wër ko dañuy ñëw wër ko moo xam ngay tëdd moo xam na ngay dox mi ngi dawalu otom mi ngi ci biir saalam mi ngi toll seetaan télé lu mën ko xam rek malaaka yi dañuy ñëw ba wër ko ci tolloog bopp rek la kenn dul toog ndax ñu ngi koy bàyyi kilifa bu mag ji muy malakul mawt yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu ñoom ñëpp dikkee ba toog malakul mawt nag doo ko yegg si ndax mooy kilifa gi bu yegsee daal di tiim nag waa ji tiimaay bi moo ne mën naa yàgg de li tax muy yàgg mooy yegg si na cinq heures mooy te fekk ruug yi yàlla cinq heures fii la def ci la war a faat faw li ñu xaar tuuti moom ngi téye nit sukuraat mu yàgg yéen nit def lu jar dee ci saasa mu def fee dem hôpital ñu def ko fee entré mu def dudal ay far def seenal ay garab parce que dama xaar mbir mi jeex bu doog a dem ñun si yàlla beneen malaaka ni daal di ñëw na bu ñëwee dañu indal ay càngaay ci càngaay àddina ay palaat ci palaat yi àjjana yi ay xanóog ay gëtt ci gëtt àjjana yi ñun si yàlla beneen bu ñu yëkkatee malaaka ni daal di wax ee yow jaamu yàlla bu sell bi génnal ci yërmande yàlla jëm ci njéggalu sa borom yéen ci yàlla bi ne dafay noot mu gën a yomb capteur bi xel yi foog xam ndox xadis bi ñëwee ko tëddee yéen ci yàlla bi ne ruugi daal doon seeku ndànk loolu mooy mu dee dee sedd loolu mooy wan naashiqaati nashqa yéen ci yàlla bi ne mu dee dee sedd loolu la yéen ci yàlla bi ne al mumin yamuutu bi arafin jabin julit buy dee dee ci naqu jë lay dee te xadis la xadis la bu wér naqu jë borom xam-xam dañ ko firee ñaari firi bi ci njëkk mooy mbir ma dana métti lool ndax la koy tax a métti mooy yi nga yi la dese woon ci la yàlla yu la yàlla y baal ci ay bàkkaar da koy daal di boole foofu rek rusi gi daal di xaw a dëgër tuuti nga ñàkk sax bu ko defee doo dajeeg yàlla doo dajeeg moom ci benn bàkkaar am na ñu ne déedéet du loolu lim ci namm mooy ab julit koo ko fekk day bëgg a def lu lew di liggéeyal boppam di ñàkk ci ab dërëm pour mën a dund ñaar yëpp benn bu ne borom xam-xam yi wax yéen ci yàlla bi nee nañu daal di xëcc ruuj gi nag bu ñu ko xëccee malaaka yi yéene ko allahu akbar ruuxun tayyib ruugu teey bu laab jaamu yàlla boo xam ne kaana saajidan kaana raakian kaana qaiman kaana qaiman kaana baakiyan kaana xaashian boo dikkee ci ragal yàlla da ngay defee ni moom foofu rek la ma ne woon nga dikk ci rukoog julli si dul nga defee ni foofu rek la ma ne woon nga dikk ci koroxlu suñu borom am na say diplôme yu kawe nga ñëw si woor am na say diplôme yu kawe koo dem ci ay baaga di am na ci jikkoom yu kawe malaaka yi daal di koy teg ci kaw kanam bi kontaan nag ñoom ñëpp ndax jaamu katub yàlla foo ko fekk day bëgg jaamu katub yàlla wolof yi nee nañ ku lakkale day bëgg ku lakkale comme moom waaye ku baax la day bëgg ku baax comme moom malaaka yi ñu kontaan yéen yàlla bi ñu ñu fër laaw ak moom dem ba ci asamaanu beneen ñu fëgg li ñu fëggee dañuy wax ni kooku kan la dañu diw doomu diw ak diw dëkkoon barab sàngam moom la borom bi subhanahu wa taala soxla pour waxam tey yéen yàlla ñu gis bu ci asamaan yi daal di ubbeeku mu ne su ubbeekoo ay sa malaaka yi ci boppam ci li toll na xam ngeen ni asamaan boo dem la fa ne ci ay malaaka laa yaalamuhu illa rabbuhum seen borom rek la xam ndax seen bari waay yonent yàlla bi nee na malaaka yi dañuy jékki-jékki rek am benn odeur benn xeet bu neex bu leen xeet ñu ne waaw lii kan la ñu ne ruux diw ak diw ak diw ku sell ku baax ci moom la yàlla baax tey malaaka yi ñaan seen borom yàlla kii dee leen koo ormaal kii dee leen koo bëgg est ce que jox nañu ndigal ñu gunge ko suñu borom ne jox naa leen ndigal yonent yàlla bi ne ñu def délégation di ko gunge allahu akbar man an yaay kan yow mu ñàkk solo bi ngay nelaw te malaaka bi nelaw yow mu ñàkk solo bi ngay lekk te malaaka du lekk yow mu ñàkk solo bi ngay bàkkaar te malaaka du bàkkaar yow mu ñàkk solo bi waaye am nga dara ju kawe ba malaaka yi di ñaan ndigal seen borom pour gunge la yéen ci yàlla bi ne la buñ dikkee asamaanu ñaareel bu ñu fëggee ka daalika malaaka ya fa nekk wax lu mel niñ asamaanu benneel waxoon sàkku seen ndigal seen borom pour gunge ko yéen ci yàlla bi ne asamaan duñ dem rek noonu lay def ba délégation bi koy gunge allahu akbar anta alfaqir anta alxaqir anta daif anta almuzlib ban maqaama nga am ba ay junni junni malaaka di la gunge ahan kay am nga maqaama xam nga maqaama jël na maqaamatu taxqiqil ubudiya mooy nangu nekk di nga nekk jaam te ku nangu nekk jaam amatut lu muy bëgg amatut lu muy bañ ay bëgg-bëggam ak ay bañ-bañam dafay boobu ci ginnaaw bëgg-bëgg yàlla ak bañ-bañam loolaa tax maqaama jooju wa annahu lamma qaama abdullah maqaama ji gën a kawe ji yàlla taggee yonent bi mooy maqaamul ubudiya yéen ci yàlla nee na bu asamaan yi jeexee nag mu nekk rabbul arsh xanaa ko mën nga wax rabbul arshi farxaan fekk borom jaam yi kontaan na muy yàlla yéen ci yàlla nee bu ñu yegsee ci moom suñu borom day wax diw doomu diw ak diw sama jaam sàngam uktubu kitaaba abdi fi alliyin yéen ci yàlla bi jàng wa maa adraaka maa illiyuun kitaabun marxuum yashhaduhu almuqarrabuun alliyin allahu akbar da ngay sonn da ngay sonn ay guddi dañuy paas da ngay dem ci jënd kër fajar xalaat ci góor ana soxna si mu ne ma ci quatre heures la jugoon dafa inscrire woon ay doomam français subhaana rabbina al aala heure julli ba julli faat la wallahi mbokk yi fii moo jar a sonn ci inscrire fa sa bopp uktubu kitaaba abdi fi inscrire leen turam ci ajana ay lii yii xoolal kañ kañ nga faatu woon mille neuf cent mille neuf cent ba fii ñu toog tey ñaata at la téeméeri at ak juróom-ñeent ba léegi rek satur na ñu inscrire foofu ñu xaar rek yow ma ñu ba asiw in sha Allah ma adraka ma hal yun kitaabul marquum fooy woo xam ne ku ko bind lañ ko bind du ful du somp yashhaduhu al-muqarrabuun malaaka yi gën a jege yàlla dañuy bokk suñu tàmpone foofu di wane ni yow nii kat sa àjjana leer na ba ma ci nee noonu rek suñu borom mu ne delloo leen jaam bi ci àddina malaaka yi samay malaaka danañ ko fa fekk laaj yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi dellu si waat nag ak ruux bi day sax bi ñuy dellu si day tombé say mbokk nag defar nan la sang nan la sang nan la dëkkal la li nga doon dañ ko fa xool ci yow lépp day ab nit tiim na ko ci yow rabbuna karim ci njàngale safal ñu suuf ku bay ay ayib la ñu jël leen morso teg ko ci kaw awraam yi ñu defar la ba pare takk la ngóor lañu sa kër gi dugg dugg sa sa takkaay yi du ko ko takkati sa dàll yi du ko ko solati sa daamar bi du ko ko warati sa doron dem du ko ko demati gis nga donc yàlla bi ne dañu daal di koy yóbbu buñ ko yóbbu ba wax ci suul ba noppi donc yàlla bi ne nag bu ñu tourné bay dox rek ay jéego yu gàtt la ñuy dox rek wa innahu la yasmau qara niaalihim borom bi daf lay dekkal nag ngay dégg nag ki sa ki sa tànk yi ñu ngi dem wóor la ni ñoom bàyyi diw ak bàyyi diw ak sa xarit bi nga bokkaloon sa ngay liggéey ak sa dëkkandoo bi nga takkaloo woon kër ak ñenn ci say njaboot ñooy safar safar yi tànk lu di ci wa inna daara al axira la hiya al xayawaan law kaanu yaalamuun mbokk yi dund foofu la yàlla mu ne wa inna daara al axira kër al axira la hiya al xayawaan mooy dund gi tax ñuy wax dund law kaanu yaalamuun dina xam ngeen dara nga xippi foofu doomu aadama tur wu mu xam si ñi ko doon indi dana ko woo yestaxiisu bi man su nen lay xippi ñee nga xam ne kenn dootul dëkkaat ñi nga xam ne ku ne yàkkamtee naa yegg këram ba xamasi yëlgu kenn ca liggéeyam ba da leen woo wallahi ñi ba leen woowoon dina wuy si kenn si yàlla bi nee nag am ay malaaka yu yu tudd munkar ak nakiir kenn ki mu ngi tudd munkar munkar bi lugal arabiya mooy koo xamante ni kenn xam munkar mooy koo xam ne day day day moom da bëgg la xam kenn nakiir mooy koo xamante ni kenn xam bëggul kenn xam ku bëgg la xam kenn ak ku bëggul kenn xam ñu xotti suuf si daal di dugg si fekk sama fi ñu nekk mbokk yi ñu ngi wax ba mu xóot ñu dugg billahi lii lu jar di xalaat la ñu fekk la foofu daal lay yéen daal dañ lay koogloo buñ la koogloo ñu laaj la nan nga kuy sa borom kuy sa yonent loo doon wax si Muhammad loo doon diglante alquran waa da nga yaakaar ni mën a wax wala am fasaxa dana tax nga tontu déedéet foofu moom jaamu yàlla rek mooy tax nga tontu yéen ci yàlla nee na bu dee aji gëm yàlla ci ndeysaan day tontu ma ne ko man rabu kuy sa borom ma ne ma xam sama borom mooy yàlla subhanahu wa taala moom laa doon jaamu kuy sa yonent lu nga doon wax si waa ji waa ji de gëmoon naa ne mooy Muhammad ibn Abdillah gëmoon naa ne moom la yàlla yónni maa ngi ko doon topp tey jëfe kenn ka laay ak la ma mën ci sunna ci dan diine nga nekkoon mu ngi ci diine ñun ci yàlla beneen laaj yëpp tontu war ko waaye mbokk yi diine àllaaxira ku la ko ooyee bala rek bëgg na la fam di jafe-jafe doonte tontu na bu baax ñun ci yàlla maraake dañuy baalaat jéego de baalaat laaj man rab maa diine ko maa nabi jaxas sa xel ni bëgg laa lëkk bi foofu nag yàlla nag daal di indi ndimbal ñun ci yàlla bi jàng yi sabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabit في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء yàlla ni dal bay may kàttan na dëgëral la luñ baral baral baral na gën leen a bar allahu akbar allahu akbar am na asar boo xam ne wax ne Omar ibn Xataab radiyallahu anhu li mu duggee baam ne dañ ko laaj ni ko man rabbuk mu ni yéen bi damay laaj man rabbukuma wala may wax man rabbi kan mooy sama borom man xam nga seen borom yéen ñaar yépp parce que wallahi yàlla dina ko dëgëral ndax ku sa àjjana leer te faatoo ko kooku bàmmeel du la jaaxal yéen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ah suñu borom daal dina léegi nag xëccil leen ko nag ay raatol ay branchement yu bàyyi ko sa àjjana yu kawe ya ndax inscrire nañ turam ba noppi kon mën naa commencé jël wàll jël bu ngay xaar àllaxir allah akbar yéen ci yàlla mu ne fa yatiyi neen rawsiha xet ba nekk àjjana raakol daal di fay jóge yegg si xir wi ak neexin ya raakol jóge fa yegg si xéeb ma ca àjjana day mel ni yaa ngi baam mel waaye yaa nga àjjana malaaka yi ñoom wéy nañ ñoom loolu lañ seen dund xib naa laate rek yéen si yàlla bi nee na nga toog tuuti rek genn waay yegg si bu rafet xar kanam boo xam ne mosoo gis ku rafetee noonu malaaka ni ko yow yaay kan فوجهك الحسن حسن كأنك تأتي بالبشارة saxaar kanam bu rafet bi ndax dangay dangaa mel ni kuy indi mbégte mu ne ajal waaw waaw yaay gam mu ne ana amaluka saalix man maay sa jëf yu baax kunta musra'an ila taaat muti'an ila almaasi fa abshir fa hada yawmuka alladi kunta tuwaat yow de xamoon naa la man xamoon naa la ci gaaw ci def topp yàlla xamoon naa la ci yee xam tamu gu def mooy yàlla bégal lii la la yàlla doon xaare tey seen ci yàlla beneen noonu lay tëdd tëdaayu kuy seetu déggal de tëdaayu kuy seetu ilaa yawmal qiyaama mbokk yi yàlla yàlla subhaanahu wa taala defal ñu loolu ak am sol ñaan yàlla subhanahu wallahi tabarra ila allah ابك حتى لا يبقى دموع في عينيك واسأل ربك jooyal ba amateloo génne te fekk lii rek ngay ñaan yàlla yàlla lii yàlla na ko def kese Usmaan ibn Affaan mu saan romb bàmme billahi alazim day jooy ba xëm ay naataango ñu ngi woo Usmaan suñ sawar ak ni mu mettee ak ni mu garaawee te bu ñu koy wax dañuy seet yow da ngay toog dal doo def dara waaye bu ñu tuddee bàmme nañ da taxali ko su dago يعني جماعة ديكم سنة دي صلى الله عليه وسلم بيوحني القبر أول منازل الآخرة فما فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينج منه فما بعده أعسر كمش يسجلنا ويجل النير ويكمش يسجلنا ويجل النير يمشي على بن سفكي عدي سفان بجلال يلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على بن ملاكي سقر yoo xam ni ñu ngi jël si waaye jël si sañu ñoo bañ nañu jël si ruub bi bu ñu yeggee yéen yàlla bi nee na malaaka mi day wax yooyu yow bakkan bi génnal jëm si meral sa borom yàlla subhanahu wa taala yéen yàlla bi nee ruub bi day jiit gis nga bu tiitee dafay lëkkasu laqasu ci biir yaram bi léegi dafay xool tànk pour jaar ci mu gis ni mën ta génn mu daw dem sa loxo yi mu gis mën ta génn mu daw dem ci bopp bi mu gis mënta génn fu mu jaar loolu mooy tax sukuraat ko mu sa fexe bi nga ci mbokk yi seen lépp a ciy bokk Amr ibn al-As bi mu toll ci sukuraat bi mu ko laajee na leen misaal lan mooy sukuraat mu ne li ma gën a xam ci lu tuuti mooy loo xam ne nit su fekkoon dañu jël garab bu am ay def dugal ci biir yaramam mu lëmas ci ay bitam ñu yor di jëlee ci gémmiñ gi mu ne wóor na ma ne lee moom xam naa moo gën a seet bi yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam malaaka yi daal di xëcc ruub yi loolu mooy wan naaziaati garqan yàlla mooy gën naa ci sama malaaka yi nga xam ne dañuy ñor di di xëcc di dëgg ruux ak ki nga xam dafa nar a texee yàlla yàlla musal ci loolu mbokk yi wallahi lii nañoo xam ne ñu koy dund am na ñoo xam ne nii lañ faatoo saqaw qabla an yamutu faat torox nan texee dinañ balaa ñoo faat yéen si yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ruug yi bu ne bëgg faa jaar bis bis xëcc affaire yi dëgër malaaka mi xëcc ko ñab di ko ak boppam génne ko fekk ñu yor ay palaat yu xamaat yu tilim sàngaay yu yu kenn bëgg la gis yéen yàlla bi ne ñoom dañuy cib ruug yi ba kenn du bëgg sax mu toog ci say loxo lu ma tëggoon fiwul la ñuy def yéegal moom ci asamaan bi ñu demee fëgg yéen yàlla bi ne suñu fëggee waa asamaan dañuy wax ni inna alladina kafaru la tufattahu lahum abwaabu samaai wala yadxuluna aljannata xatta yalija aljabalu fi sammi alxiyaab suñu borom nee na ñi ko weddi woon kenn du leen ubbil buntu asamaan xaram na ci ñoom wala yadxuluna aljanna àjjana duñ fa dugg lu dul gileen moo xaj ci bën bënu puso loolu mënta nekk kon moo du leen dugg àjjana léegi lu des mu ndoo yéeg yéen ci yàlla bi ni yàlla mu ñu sànni leen dugg fu ngeen ko sànni baax sunu borom ci suufu xaj mu wayshadu llah fa kaannama xarra min alsamai fa taxtafuhu tayru aw tarwi bihi rrixu fi makanin saxiq yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla ma ne uktubu kitaaba abdi fi sijjiin yëgtiwul de waaye yegg leen ca buntu safara sijjiin ngeen bind fa turam allahu akbar yaram woo xam ne mënul dékk laq-laq yaram woo xam ne mënul dékk naaj xaana yaram boo xam ne mënul dég ci sii jam jamu jam jamu dég suñu borom ne maa adraka ma sijjiin kitaabu marquum waylun yawma idin lil mukaddibin téere la suñ bu ñuy bind bu fonk mukk waaye yow day daf kare ñeel na la yàgg ñu nga nar a àndal yéen si yàlla bi mu ne roo gi daal di dellu si waat fekk ay mbokkam suñu nañ ko ba noppi nit ki noonu say mbokk yi dem ko nag ay jéego yu gàtt sa borom delloowaat la sa confiance man nga yëg man diw doomu diw ak diw dëkkoon ci barab sàngam daan sol yére yi nangam ak daal yi sàngam tey nag maa faatu maa ngi nii pour woo xam di ko woo wala taxina manaas kenn du la wuyu yonte yàlla bi neena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ay malaaka yu ñëw yoo xam ne ñu ngi xott suuf si bu ñu ñëw da ngay gis dañu seen riir mi yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala rafetlu lool ñëw fekk la ci nga toog lu tëj la lu la tëjee laaj la kan mooy sa borom allahu akbar ndax déggul arab dana tax nga tontu laa wallahi ndax amoon lu ñuy tontu si àdduna dana tax laa wallahi xàq yi ngay jox waa àdduna du moom ngay jox waa alaxira ndax mbir yi bokkul xam nga ci dara yéen si yàlla bi nee na buñ ko laajee dafay jiit ñu ngi siggi di kulli ba ci di xool gaay yi la adri nit bu fekkee dañ koy wax mu jaaxle ah ah ila ah yow la adri man li ngeen di wax dama xamul sax lan la mbokk yi ku xamul li ñuy wax lan la ndax di nga xam li ñuy tontu lan la la wallah yéen si yàlla bi nee na foofu la dañuy leerloo yaa ngi suñu borom subhanahu wa taala kenn ku ci nekk yaa ngi yor ci ay barre de fer ay dóorukaay yoo xam ne bu fekkoon ne dañ ko dóor ci kaw montagne da dafay fas dafay mokk yéen ci yàlla bi nee na dinañ ko ko dóor te buñ ko ko dóoree dafay maagaloo ak suuf si allahu akbar mbokk yàlla yàlla musal ci loolu subhanahu wa taala wallahi li nga xam ne ñu koy dund wallahi am nañu koy dund yàlla yàlla musal ci subhanahu wa taala yéen si yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam noonu rek suñu borom daal di wax nañ koy branché musiba yi nekk ci baab ci àllaxee ci sawar mboolem fa yatiha min fayxiha wa adaabiha soo loolu safara sa nga xam ne Abdullah bin Mas'ud nee na billahi alladi la ilaha illa hu su tiimee su rombee alaw ci ko alaw ci ko xar kanamu xar kanamu nit ñuy der bi féete woon kaw lay dugg ci bu fekkee da ko tàbbal ci ndox bu dee xàmmee woon nga ko ko ci àddina marque marque la mu duppati boo gisee da ngay xam ne lii marque marque duppati ku xar kanamu diw soo loolu soo ko dal di yegg bugal la yegg suñu borom ñu ko tuddal foofu ba allah mbokk yi lii la waa baal nañ ci mbokk yi ci li dimbali nit ki nekk ci tarbiyat nafs ñu yar bakkan mbokk yi xumbaay ak mbooloo léeg-léeg day fàbbi xol bala nga war a xalaat doo ko xalaat waaye wéetal yow kese fi zulmati llayl wannaasu niyaam fa qumta fa sajadta wa rakaata wa jalasta wa xattaata nit ñi tëdd nañ fay dafa laam nga toog nag léegi ngay xalaat man diw dooma diw ak diw dëkk ci barab sàngam ay maa dee yi ma doon dégg man la keroog ay insanin akun keroog kan laay doon wallahi rabbul arsh xam na ni lii ku ko def nga dëgg in tasduq maa rabbik yasduq ka rabbuk boo dëggoo yàgg sa borom dama ni balaa nit ñi yëg ni yow mi changé nga yow njëkk yëg ni soppeekoo yow parce que loolu dafay nekk bakkan daf koy yàq bëgg-bëgg yi nga xam ni moo doon nekk ci sa xol te mbokk yi comme ni ma ko mën a fàttalee démb àdduna mi ngay bëgg laa yajtamiaani fi qalbin waaxid xubbu dunya wa xubbu laaxira mën ta nekk rek sa bakkan lépp da nga ko fi bàyyi ngay xalaat loolu la wallahi lii boo ko xalaatee bu defee jeexintal si yow dama ne ku nar a séq ak yow xuloo nga bàyyi ko ku nar a séq ak yow coow nga bàyyi ko ndax taloo ko jaan yàlla yi tigi tigi tigi wallahi taluñ yooyu am na si nit ñi ñoo xam ne ñu ngi dund fi mu ne waaye luñ seet ak yow lu ndaw ndaw ñu bala ko def bala ko def parce que ñun taluñ yooyu nga tal yéen ñun dañoo yeneen programme yu ci nga war a yor li ngeen xëj koo bañatum ak ñoom tuuti yi wallahi lu ngeen seet ñu ba ko yow lu ngeen di waxtaanee xelam mi ngi dem ci dee ci sol suñu borom xamal na ma fekkee xamal na ma ko fekkee sang ba day sallallahu alayhi wa sallam ndaw sa daa dikk ni ko waaw su ma ñëwaatee beneen yoon fekk ma la fi nag mu ne ko boo ñëwee di fekk ab bakar mu toog radiallahu anhu kon nii doon sóoraale bis dana ñëw mu dugg fi lii nag mbokk yi damay wax ni yar yi yar bakkan yëpp boo leen dajale woon bii mooy aussi gën a rëy ndax yar fala yar bakkan yem na kon mbokk yi dañu gën a delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala wala ñu ngi ci guddi yu barke guddi yoo xam ne bu ñu xamoon guddi yi guddi yi lan la dana ñaan yàlla subhanahu wa taala bu fekkoon fu ñuy jéggi ngay doon te du nekk mukk danañ la jéggi ndax li nga ñaan dafa ëpp alhamdulilah bi nga xam ne kenn du la jéggi ndax ñaan du ëpp waaye li ngay ñaan mbokk yi tàmbali fu gën a kawe doo gën a fi gën a si suuf sama lii sama lee suñu lii suñu bàyyi réew yëpp tàmbalee ci kaw ñaanal aljanna musulu ci safara musulu ci mbugalum bàmmeel billahi aleykum muhammad ibn abdillah salawatu rabbi wa salaamu alayhi nga xam ne gafara allahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma taaxara su fekkee bis bu ne kulla yawmin xamsa marratin fi salawaati alxams moom moo naan yàlla allahuma inna naudu bika min adabi jahannam wa audu bika min adabi alqabr واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات moom day ñaan yàlla yàlla na ko yàlla musal ci mbugalum bàmmeel moom lu ñu musloo ci day kum baal loo def babaa la loo defagul kooku jër bu ngay jéggalu waaye ñun lay jàngal wa nahnu la nadri te ñun xamul kon mbokk yi mu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci bis yu barkeel yi ñu nekk ak guddi yu barkeel yi ñu nekk nga xam ne ñoo ngi nox suñu ganna bi rabbina ci mën nañoo dàq ba dajaale leetul xadr mu ngi ñaan yàlla ci jumtukaay yi nga xam ne benn bu ci nekk buñ mën a jafandu la pour yaakaar te ñaan yàlla mu dajeeg na ñu ne ci jàkk mu dajeeg na ñu ne ci guddi nga xam ne yàlla yanzilu rabbuna ila samai dunia kama fi sahih muslim ba ci asamaanu benn neen allahu akbar allahu akbar allahu akbar mbokk yi xoolal yàlla subhanahu wa taala mu ne kan mooy ñaan jibril kuy ñaan ma may ko kuy jéggal mu jéggal mun wa dalika kulla layla guddi gu def yàlla def ma arhamahu bi ibadi ndax am na kenn ku yërëmee ay nitam comme ci déedéet ku ci ci la dem tukki ñaanal yàlla subhanahu wa taala su juutal da ko wax lu yàlla ñaan ko yàlla lu yàlla musal ci mbugalum bàmmeel yàlla yàlla musal ci mbugalum sawara yàlla yàlla musal ci fitne yi addina fitne wala axira lii de mooy loo xam ne doomu aadama bu ci nekkee tey ne ci suba ne ci ginnaaw suba dina yër ci yow bakkanam loo xam ni yàgg naa sonn ci yeneen dëgg la yooyu yarukaay bakkan la waaye yoon moom bu bëggee bëgg ngaa teel a yegg yoon ba gën a gaaw ngay taamu su dee baax na te bii gën naa gaaw baax na yàlla yàlla defal ñu tawfiq ci dunia wala axira yàlla yàlla subhana taala may ñu aljanna ci musulmi ci safar yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ci moom wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain Thank you.